gennuk noonu mu di populisme radicalisme ak extrémisme kon nag nañu boole suñuy doole xeex ko xeex bu amul àpp mi nga ko xamle moom Macky Sall ci ab ndaje moo xam ne rek ubbi nañu ko démb fii ci Ndakaaru mu dajale nag dirigeants libéraux yi nekk Europe ak fii ci Afrique ñu des ba tey ci yëglekaay bi di Le Témoin ak discours njiitu réew mi président Macky Sall nag ma nga fay wax nag bay delloo njukkal kii di maître Abdoulaye wàdd nag tagg ko fa tagg yu méttee métti bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi libéraux yi nag ñoom ña ngay xam xamle nag ci yéenekaay bi di Le sàmm nañu nag góor gi moom njiital soppi di maître Abdoulaye Wade ñu noppi ci ndaje moomee wax ci leneen mu soxal Ousmane Sonko mi sàkku ci état bu Sénégal lu toll ci junne ak ñaar ak juróom fukki ciy milliards yéenekaay bi di Les Échos ne 750 milliards yi nag dafa jëm ci wàllum yoon ak nañu ko tegee loxo téeméeri milliards yi di ay dàmpaay ak intérêt 250 millions di beneenub dàmpaay bu muy sàkku ngir ñu jox ko waa këram ñaar fukki millions di ay koppar yu mu war a jëmale ci frais de justice ci jamono joojee nag yéenekaay bi nga xam ne moo di yor yor nag dikk ci coup d'état ba ñu amalee ca Guinée Bissau journal bi di sampaab laaj ne ana ñu doon joxe ay leçon yër leen yëglekaay bi lu jëm ci élection représentativité yi bés bi la jour nag ci la xëy def ci ab dossier bu yaatoo yaatu jëm ci wàccaay wi tolluwaay wi moo xam nag jàppale leen ci wàllu IPRES subvention yi ak yeneen ak yeneen ci biir yëglekaay bi di bés bi le jour mbaalo ja caam ma nga fay xam ni nag ne moom mooy mandataire bi te it nag moom mooy kiy wutu kii di Sidiya Ndiaye ñu wax ci njaayum gerte gi ak lu jëm nag ci njëg li nga xam ne tàmbali naa juraay jafe-jafe di jiixi jaaxa ci ñii di huiliers yi ginnaaw bi ko nguurug Sénégal jàppee nag ci ñeen fukk ak juróom-ñetti dërëm ci kilogramme bi loolee nag tax na ba jamono ji ñii di baykat yi nag ña ngay xool exportateurs yi nga xam ne rek dañuy jugee ca biti réew ngir mën caa génn wax ci ñeneen ñi génnagul ci mball mi kay jamono ji nag mooy ñi nga xam ne rek dañ leen a tegoon loxo ci ab bateau bu yeboon drogue fii ci réew Sénégal l'observateur yéenekaay bi dellu suwaat nag ci lu tukkee ci enquête beeg la ca mujjee ñeel nag ñetti tonnu cocaïne yi nga xam ne rek ñii di waa marine national teg nañu ko loxo yéene yëglekaay bii ne ki jiite woon opération bi nag jamono ji ak yeneen i doomi aadama teg nañu leen loxo waaye nag ma nga cee tudd benn doomu jiiti réew bu nekk ci suur région bi la tribune yëglekaay xëy def taxaw seetlu ci hôpital yi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci sukuraat yéenekaay bii ne fi mu toll nii askan wi nag ñàkk pexe rek moo leen di tax a yóbbu ci hôpital yooyu fekk nag le mandat dikk ci coow lu rëy li nga xam ne rek ñu ngi koy tudd foofee ca ministère de la santé mu soxol nag marché gré à boo xamante ni toll na ci juróom fukki milliards ak benn bu ñu fay tudd critique yëglekaay ne jamono ji nag ñii di ay fournisseur sénégalais fi mu toll nii nag dañoo mer bay futu ña ngay sàkku ñoo amal ci ak caytu wax ci wàllu tàggat yaram ak sunu làmb mi nga xamante nii rek ma ngay xam ne ni moom B52 di bombardier nag ma ngay sàkku ci VIP yi nag ñuy affronter jeunes yi waaye nag ba tey ci sunu làmb moom bombardier digganteem ak rëg-rëg ma ngay xam ne ne nag bis bu noppee ci rëg-rëg am na beneen ndaw bu muy may chance nag laata moo tekki ngembam jeexale yëglekaay yi ak libération ñuy xamal nag ni brigade de recherche bu Kër Massar nag